Dadi ñu ngi lay nuyu tey ñu fekk la fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Pikine ci dëju Ndiaye bi ban seede nga mën a def ci moom. waaw njaay njaay bu ñu seede moom duñ fi jógee bu ñu waree wax bu naree wax li li Ndiaye mel népp amaana mën nañ ci bañ a jóge ndax njaay nit la woon ku baax nit la woon ku ku ku ku ku ñeme partagé nit la woon boo leen àndee fenn sax ñamul ñemul lekk bàyyi la. Euh, te li ma gën a neex ci moom Ndiaye ku ñeme njaboot bëgg njabootam euh, njabootam nag yàlla na ci yàlla teg loxo ci barke Seydina Muhammad euh, Ndiaye li may seede ci moom mooy talent bi nekkoon ci njaay jafe na nga gis ko ci senegal fii Ndiaye li doon neloo ci moom ñëpp Sénégal xamuñu ko balaa nga xam Ndiaye talent bi ne ci moom ngay ngay nelawoon ak moom di yeewoo ak moom ci nga xam ne ne ci Ndiaye dëggantaan. xeetu talent boobu eh, jàpp nga ne eh, gis nga koo xam ne fii senegal mën nga ko méngale ak moom. non yàlla moo tax may wax bés bi ku ne war na ci mën a bàyyi xel bés bi du jaas kenn ku ne war na ci bàyyi xel moo tax dëgg rek lay wax amul kenn ku mel ni moom. lan la gën a marqué ci moom. waaw li ma gën a marqué ci moom bi ñu demee Gambie la bi ñu demee Gambie. Euh, ñoo nekkoon woon foofu nekk tournage benn film lañ nekkoon mais Ndiaye séq na ak ñun séq na ak ñun ci ku ne teraanga séq na ak ñun euh, lu nit war defal nit ki parce que boo xoolee même bi ñuy ñëw macha allah macha allah oto bi ñu nekkoon sax douanier yi daaw ñu arrêté tellement que moom moo taxoon. noonu mais bu bu bu ñu bu ñu maanaam bu douanier bu ñu taxawalee avant ñuy xam ne artistes ñoo nekk ci oto bi moom mooy wane boppam nuyoo ak ñoom gars ne eh ñii oto bi taxaw mu wax ñeneen artiste ñun la ñun la ñun ñoo ñun ñoo nekk gars yi nag xam nañ la quoi ñu ne non dañuy dem Gambie nii pour tuddee ji même bi ñu ñëw noonu la demee woon gars yi tijjiwuñ suñu oto ba léegi nii wax sax ndax ni euh, euh, euh, téye ñu wala demee noonu wala pour pour pour maanaam pour jéem a pour jëm ñu contrôler ak yooyu. loolu voyage bi yàgg na. Euh, def na un léegi bi mu ñëwee peut-être ay quelques mois lañ ci teg mu ci la tëdd feebar mais Ndiaye macha allah yàlla na ko yàlla teral yàlla na ko yàlla bégal ni mu doon bégalee nit ñi loolu laay wax saa ne yàlla na ko yàlla bégal ni mu doon bégalee nit ñi ndax njaay du nekk fenn foo xamante nit ñi dañuy mer wala ñuy dañuy dañuy stressé wu. loolu sax da ko buggul woon buggul woon loolu Ndiaye wax mu ne waaye fii kenn du fi fas kanam da ngay fas kanam sax mu retaan loola da mer sax ñëw mu bégal la da ngay xuloo sax mu ne xoolal xuloo ba day jeex parce que da ngay da dangay ree par force yàlla na ko yàlla bégal yàlla na ko yàlla teral fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee ci barke Seydina Muhammad njabootam bi yàlla na ci yàlla teg loxo. Lamine Senghor di artiste comédien tey ñu ñëw fekk ko fi Lamine ñu ngi lay nuyu ana ban seede nga mën a def ci Ndiaye waaw njaay moom euh, salaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax euh, di sant yàlla di jël si yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Ndiaye seede bi ñu seede si moom rek mooy li ñëpp di wax kenn ku nekk sekk ak nga loo xam ni yow la concerné moo boo gisee nit ñi ñëw fii ñëpp artiste amul kenn ku toog ndax Ndiaye moo ko seqoon ak ñoom kenn ku nekk bu waxee si Ndiaye dina bàyyi lu bare bare bare du nu wax lu dul baax na. bëgg na mbokk yëg na nit fonk na ñëpp dama daan toog ak moom ni ko booy woyal sama yaay waay mu indil ma xaar mbay ma jaaga ma woo sama yaay jox ko sama yaay day kontaan bay jooy wala ñu woo ko publicité mënu ma booy kaay am na ku ma woo kaañ dem bu nu demee ñu xool ndax mun nañ ko dóor parce que seq nañ benn série bu bu neex boo xam ne ndogu à la présidence moom moo si nekk Farba Ngom mais kenn du ngeeb yéreem sax da ko daan indi partagé ko ak ñun. booy solol bi bul sol sa yére bi solol bi bi moo gën a daax rafet xam nga kooku tey ku koy def borom xol bu rafet nga yor kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na jéggal njaay ci barki Seydina Muhammad ndax fi ñu ko denc ci Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, euh, ku kun ko kun ko uufal suñu xel day dal kon yal na yàlla yokk leeram waaw parce que li ñuy wax ci artistes yi rek nan bëggante te nekk benn te ñun sax amuñu problème boobu amuñu benn artiste jibee ngi nii ba ma ko gëj a gis yàgg na mais gis nga danoo laxasoo toog waaw ñamaxit a ngi nii toog ñu ngi soo ko gisee tey mais danoo songante waxtaan saafoo parce que loolu mooy artiste artiste euh, day artiste kon donc ñun tiis bi ñu dal tey ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla jéggal Ndiaye jéggal ko bu baax ba pare yàlla yéex ñu ñu koy ñaanal ndax àdduna kat noonu rek la demal maa ngi ñëw ku sa àpp jot nga dem te Ndiaye demam gii kat am nañ si yaakaar. ndax ndax taxaw bi waroon ci moom euh, gis ngeen ni euh, euh, jot na am ci artistes comédiens yi ci côté ñi nga xamante ne ñoo ko entouré woon fa mu doon liggéey ak yëpp gis ngeen loolu. non loolu xaw ma si dara mais de toute façon ñi mu doon liggéeyal bu ñu ko taxawoo du nekk si mbedd mi naan taxawu nañ ko mais ñoom taxawu nañ ko taxaw bu rafet. artistes yi taxawu nañ ko taxaw bu rafet mais artiste moo wax la benn jikko tey si artiste ñu ngi dimbalante si suñu biir te kenn du ko wax. parce que amuñu jotu dimbali nit ba pare taxaw fee naan ko waaw jox naa ko nangam wala déedéet fi muy liggéeyee ku ne ñoom am nañ ngoru ku feebar wala ku def dara ñu taxaw la mais duñ taal si rajo yi wala si journal yi naan jëmbali nañ ko lii di non non non ñu ngi ko jàppale te yàlla tax dee nag bu ñëwee bu doon ay milliards day dem bu si defoon ay milliards day dem dem moom dem la rek mais nag rafet na parce que gis naa artistes yi taxaw ko gis naa dégguma sax. si dara nag si waa Futurs Médias mais xam naa ni taxawul nan ko parce que ñooñu duñ seetaan ñenn kuy liggéey si ñoom kuy liggéey si ñoom bu feebaree dañ koy taxawu mais duñ ko taxawu ba pare nag di tëgg sabar naan taxaw may def nañ ko lii def nañ ko lii nan si dundee yaakaar te ñu am si njort bu rafet dem na dem na na rafet waaw te te ñun ñu ñaan yàlla mujjee puso bi mu réer yal nañ si yàlla musal te ñuy ànd te ñu bañ a ànd jaayante tàggoo jëwante quoi nanu nekk benn di xàccandoo di dóorandoo man daal loolu laa gëm te loolu laay doxeek ak ñoom tey sax c'est la première fois may wax ci affaire affaire sud yi parce que man bëgguma wax mais Ndiaye tey moo tax ma wax yan na ko yàlla xaaree àjjana wasalaatu wasalaam ala rasul. Ndiamakhate ñu ngi lay ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax baax ñu leen di delloo fay nuyoo. waaw mu ngi noonu jërëjëf. tey jii euh, kenn ci bokk bokk ci yéen daal di fi wàññeeku mu Mamadou Ndiaye euh, mu nekkoon euh, koo xamante ne li nga xamante ne moom mooy métier bi mu nekkoon mënoon na ko lool lépp li nga xamante ne jot na ko fa liggéey seede bi benn la gis-gis boobu nga ci am. waaw xam nga li ñëpp waxee dëgg Ndiaye benn suñu mbokk jullit la loolu lañ koy seede ñaareel ba. sunu mbokk la ci wàllum liggéey bi ñu nekk di nit ku baax di nit koo xam ne du jëw man boo ma fu muy yàqee nit ndax nit ki li nga xam ne nga wax ci nit ki ci lu baax surtout yu mel nii fekkee fu muy waxee nit ku lu ñaaw mosuma fekkee fu muy defee li lu ñaaw ku baax nit ku sell nit koo xam ni kër kilifa diine bu mu dugg danga naan danga naan kii fa la bokk la preuve vidéo na ko di nit ku mën li muy def. ñun kay ñoo war a am njott gu rafet ndax dëgg fa yàlla benn mën naa tax suñu xel daal muy bëgg gi bëgg yonent bi loolu loolu war naa tax ku ne sa xel daal ndax benn bëgg na yonent bi ñaar daan na tudd baatu laa ilaha illallah loolu war naa tax ku ne xam ni kii kiikat kat suñu xel war naa mën a dal ci moom. ban jikko mbooloo gënoon a marqué ci moom. Njaay lu mu yor da koy joxe Njaay lu mu yor da koy joxe moo tax Njaay peut-être. yenn yu bëri amu ko danaan joxe lépp lu mu yore artiste xam nañ ko dañ daan gars yi këram yenn saa yi boo demee këram lu mu day yëkkati lu mu yor yëpp joxe toog di xaar yàlla genre yu mel noonu dañoo dañoo raar dañoo raar si suñu suñu réew mi te di lancer appel artistes yi leen wax ni euh, ñun ñëpp benn lañ bis mel ni kun na koy am te nañuy delloo suñu xel ci yàlla te xam ni dëgg fa yàlla nit moom nii rek nga mën a sa morom nit mu faatu nga taxaw ko mu feebar nga taxaw ko mu am ne bànneex nga taxaw ko mu am naqar nga taxaw ko lii laa xam ndax ndax ñëpp dañuy wuy si dañuy wuy ñëpp dañuy fekkante rek mu yéex mu yéex mu gaaw te yàlla na yàlla na yéex waaye dëgg fa yàlla fi mu fi mu jógee yàlla na gënal fu mu jëm jàmbaar la woon daal. nit ku baax la daal te nit ku jullite woon nit ku borom xol bu rafet la woon yàlla na ko Seydina Muhammad teeru yàlla na ko Seydina Muhammad teeru jërëjëf.